sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha mbok jullit yi mbok talibi yi ñong fi ci mbar mi nga xamanteni ñi nga xamanteni ñom lañ tuddoon bis fi agsi na ci mbar mi muy ba waa kër Cheikh ibrahim Fall Lamp Baabul Mouridina ñu fas def fi ay interview seen yeg yeg ci bis bi ak ñi nga xam ne lañ ko yëgee ak na nga xam ne lañ gis nak exposition bi nga xamni mom tour Cheikh ibrahim Fall Lamp fi ci mbar Daaru Xudoos ngir waajal xisroona Muharram nga xamanteni mo lañ war def ginnaaw inshallah rabbi la yaawat ña daawoote ña daawaate Mustafa kon mu melni batay ñi ngi ni taxaw ak Serigne mohammed Lamine Mbodj momin mu nekk kenn ci jëwri ñi mu ñew teew ci fi nga xamanteni ni bok ci nga xam tew ci nañ fi ci mbam da ko doos ngir bis bi nga xam teure nañ ko ci Ibrahim Fallam Lamp Mouridina Serigne Mouhamadou Lamine tay ji mu doon exposition bi nga xam teure nañ ko jamba Serigne Touba ja muy si Ibrahima Fall Lamp Mouridina antay lool yi nak ngeen ko dundé ak nak ngeen ko yëgee yeen wa akhlu kër si Ibrahim Fallam Lamp Mouridina Assalamu alaykum wa rahmatullah bis bi mom nañ ko tuddé moy boom dañ ko delloo ci boy boy ndax Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim ciosanam mais na ko misaal ci yonte yalla muhammad Ali sallatu wasalam ak sahabam yonte bi ali sallam bi mo nekke ci lim wara dunu ba génn aduna muhajirin ak wal ansari yu dañoo amu jaxaso jaxaso ge moy ñe dañoo joge makka fekk ci wa madina ñom ñoy muhaajiriina wa madina it di lansar kenn ko ne amub ciir ci yonent bi alayhi salam ñu dem ba mu dem ñi xalaat nak legi kan mo war tok jotaayam bi ñom ñëpp ñu jaxlé ci gàttal Amar bun Xataab mujuk, jantek Abu Bakrin Sadiq ñëpp dal di nangu xamni mo wara togal mustafa ngir mom lañu tuddé ñaarelum ñaarna de nga ñuy wax nan fa sara yudha inahuma akhfa uma nasju wal warqa wal kharu kon ñaaral gi ma ko ñaareel to ay tamuy ko xamni dem na ba tuddu sadiqu motax mu jekk a jataayu jataayub yonte yàlla alayhi salatu Ahmadu Bamba khadim rasul bi yalla dogale mu nek jamono ba yag mu dem aljana ñepp jaxaso dañoo daal di amuk jaxle waaye wax nañu ni gouverneur général di moom woote woon na njariñ waaye ba mu wootee dafa bëgg a xam kii fi nekkoon te xamuñu lu mu doon bu ñu nee nekkatu fi kan moo fi war a ne ndax ku yéeme la bi ñu wooyee kilifa yëpp Cheikh Ibra yéex a ñëw yéexut a ñëw dafa am li muy def bi ñu nee mi ngi ñëw bi mu mujjee ñëw ba agsi daldi dikk ba jub len summi ay la xar ci kalam yore dara nuyo ko sëñ Mor Moussa mbake daldi di wane ni kii la ñu daldi xamni ki mo wara togal Cheikhul Khadim ci kaw suuf seen and bobé nak di dox ba nga xam tane dem nañu ba xamni Cheikh Ibra samp na Cheikh Moustapha mbake mata way kat wanila wafahu idru muntasirun fa ahkama nasma bi taqdimi muxtalifa moom day matal la ne kóllëreem ci digganteem ak sëriñ Touba is ngir duru o wurusu duru sëriñ Touba mun tasirun dafa wesaaroo woon ndax xamaguñu woon fu ñu jëm Cheikh fa ahkama nasma mu xeereñam nu ñuy nosi ak toppante ba ne sëñ Moussa moo ne ci kanam keneen ko mu ci Cheikh ko bi ñu demee itam nag be ab sampam dëgër benn yoon la Cheikh Ibrahima Fall ñëwee Touba fekk fi sëñ Modou Moustapha ba mu delloo njaarim ñëwaatul ba ni mu jibbisee fekk sëriñ Touba ajjana Cheikh Moustapha nag nekk fi ak Moustapha Fall muy ñaari Moustapha seeni nekkee nit di taxawaay bu boo xam ni seeni xel ak seeni xalaat dëppoo woon na ndax Cheikh moussa Mbacke musta def lu mu wol ak seigne Cheikh mu sëñ Modou Moustapha Fall seigne mourou moussa Fall lu ma mas a xalaat sëñ Mbacke ànd am sax ñuy wax ni am na ay jamono ci bëggu Cheikh moussa Fall akuk farlom akuk ñoram taxon na mu wolu ku ñu wax seigne Mamadou Lam kenn la won ci wa keur seigne mourou moussa Mbacke di ab loxom ba mu ko wolo lu mu koy doye daf ko ne damay bëgg nga waxal ma sang bi niko dama bëgg man mustafa mii fu ma fa nekkati fukki fan ak juroom na ma may nga ñëw fekk ma fa bi mu waxe mom lolu dik wax ko seigne mourou Sa mu ne ka ah, ndax laaj nga ko lu mu ci jublu neñu mu ne ko jott ma ko laaj de mu ne laaj ko ko mu delu ne ko dafa bëggoon nga wax ko lo ci jublu mu ne mu ne ko dama gis fuma ne fama nek ñam fay fek ñep lu ñam am dañ makoy jox te adina bëkk koo giiroo ak man te fa yeen adina àddina ko ci man ma bëgg foo ma ma jox la lañu ma jox nga joxal mako ko Mourou Moustapha Mbacké ndax moko yeyo kon la touba bindon ci am murid mom la Moustapha mom la Moustapha jëfante ak Moustapha al muridu man la yamliku an wala yamliku o takunu muridan suma fiika iradatun fa in lam turit say an fa anta maridun murit moomul boppam faal àndeeg sëñ Mourou Moussa Mbacke ba amee ko nii moo tax bi bii jombul waaye Daaru Xuddus ñoom bu ñu dee ay rëbb ma ne daan na la jam nañu ba noppi asalaamaaleykum wa rahmatullah sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ko wuy seek farjëkki su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne oh. yaawat daawoote ña daawaate Mustafa